bis bi nga xam ne bi ca la ñu jot ndigal ci sëñ Mountakha xalifa général kulu murit ngir teg xeeru barabu xewlukaay barabu berndewukaay boo xam ne bi dañ koo bëgg a defar fii ci kër sëñ tubaay gi mu jëm ci gani sëñ Touba yoo xam ne yi su nekk dañ leen fi teeru loolu mooy waral bis bi tey. yàgg nañ koo xaar rawatina nag jamonoy yi màggal yi nu jëm ci kanam nga xam ne day tombe di ci ëpp ak nawet. te ku ne xam na ni bu ñu fi daan def euh, màggal ci at yi yëpp bâche lañ fi indi te ku ne xam na ne bâche àndul ak nawet kon mosu fee ñàkk euh, nekk lu fi war a am waaye nag ci kanam at yi nu jëm nag lañ koy gën a soxlaati moo tax mën nañu wax ni daal jot na dafa jot sëkk daal te xam sëñ Tuubaa moom lu jot rek dana indi ñu ko defal mu tombeek encore euh, bisub daaru salaam gi nga xam ne sëñ Cheikh Cheikh Maam Anta doon berndeele sëñ Tuubaa ci dem gëm demoon Gabon ba ñëw kon ku ne xam na ne rek sëñ Tuubaa moom rek moo xam li nga xam ne lii lu war ci liggéeyam bi rek waxtu wu jotee tembe dana ut ñu ko ko defal mu tombeek nag ayuk sëñ taxa ñu ñaan yàlla ñëpp jàpp ci ba mu àgg ci coleet ci ay loxoom ñu yëkkati ko jox ko caabi yi mu ñaanal ñu dem ci beneen liggéey